Euh, jafe-jafe la goo xam ne dañ ko constaté. Mhm. te mu soxal ki nga xam ne moo di professionnel bi. léegi nag nguur gi mi ngi doog a ñëw man dama ànd ci yow ak keneen ñu ñëpp ànd si assainissement bi ba pare. Mhm. il faut quand même que secteur bi ñu assainir ko mais assainir bi tamit ça ne veut pas dire asphyxier. Mhm. li nga xam mooy les entreprises de presse. donc ñoom. ay la woon arrêté nañu commencion yi arrêté nañu yeneen nag yeneen xamee nañu les entreprises de presse crédibles xam nañ leen mm. les entreprises de presse yi nga xam ne ñi ngi liggéey convenablement respecté cahier de charge yi xam lan mooy liggéey taskatu xibaar bari nañ te xamee nañ leen ñi ngi si presse en ligne bi ñi ngi si web tv bi ñi ngi si quotidien yi ñi ngi si nangam nangam mm-hmm. donc nañu wëlbatiku liggéey ak ñi nga xam ne ñoo jar a liggéey mm-hmm. léegi nag ñun nañu nongo ni am na ñoo xam ne ay la yewoon tey jii ñi ngi yore ay journal alors que c'est d'anciens condamné au vu au su de tout le monde récidiviste multirécidiviste gis nga fi yow ay quotidien yo xamné ñi ngi def transhumance éditoriale transhumance éditoriale la wax amna y ay quotidien yu ko nekk di def transhumance éditoriale barki demb ñom lepp lu bon lepp plus xamné ne la lu ko su ku nguur gu fi ne

lu ko neex yàq yàq général bi lu ko neex la ko yàq xalaatul ni kii góor la xalaatul ni kii soldat la boo xam ne il a service de son pays. Mm-hmm. lan lan la defal xamuñu. parce que yow li ngay wax ni dara wóoru si bu la bottee mm-hmm. plainte nga daanu xalaatoo njabootam xalaatoo ay ay ay xaritam ay jegenaaleem nga xëyaat yow même journal bi nga bindaat même une bi si général bi tagg ko taggal ko juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar maam. Mm-hmm. ça ce n'est pas véritablement de l'information ce n'est pas du journalisme que nous pratiquons